namon ndax sa bés ku ne xamna ni bokkul ak ben bés. waaw sante yàlla rek gërëm la sante la gërëm amateur yep gërëm ñi fi tew ñep sante yàlla bu wér. waaw di ziare wat sama xalif général cheikh bi Aydara Chérif Cheikh Aya donc voilà sante yàlla rek. Pape Abdou ku ne xamna ni bésam spectacle du ci nak